vidéo yi mi ngi circulé ñëpp gis nañ ko tarkindaay nag lañ toggal bokk na ci ki nga xam moom lañ toggal muy wëcc macha allah mënoo tudd tarkindaay te boole woo ko ci yaakaar naa li wax tamit dégg ngeen ko ay ca euh, wëcc buñ jógee ci dañuy ñëw ci li nga xam mooy combat Siteu ak Modou mhm. ndax combat bi mu taxawee ñu bëri la bett ndax gis nañ combat Modou Lo ak Siteu mhm. Siteu bu amee combat Modou day ñëw ñaanal ko mhm. Modou bu amee combat Siteu day ñëw ñaanal gis nañ combat bi passé moom ak Lac de Guiers numéro 2 dafa ñëw jox ko loxo ñaanal ko ñu dem ba benn instant Modou Lo toog ne day noppalu ñu jékki-jékki gis combat bi tax ñu bari ne combat bi war woon tax parce que combat bu neexul la ñu jékki-jékki déggaa ñu ne combat bi du combat boo xam tey sénégalais yi bëgg nañu ko tant que tarkindaay tey bu amoon loo amoon lu ma siy wax combat la rek Modou Lo moog lool dëgg benn yoon la mos a ñëw barki yàlla muy suñu combat ñu ne la dëgër xaw a ñaanal Siteu Siteu tamit waa maanaam yooyu yëpp ñun làmb la làmb du diine quoi ñun ay làmb dañuy làmb quoi Modou Lo suñu grand la def ñu may chance dégg jantal grand la mais maanaam moom dafa yor lu luñ soxla muy roi te dafa am ay ñoo xam ne dañ fa jaar échec Siteu léegi ñooñ jaar fa échec Siteu dafa bëgg a dem jaar ñëw jëli ji loolu fokkati ko si loxo Modou Lo teg ko si digg jàmm gën bi waaye déggoo la mu laa Siteu ba mu dalee bëre ba léegi musul am lu yomb ñun bugguñu sax lu yomb ñun lu yomb déggoolum laa bu ñu ko naree def déggoolum laa ñu toog si gàll bi jàppale maire bi mhm. si dëbb beeg roof bi mhm. ñun bugguñu lu yomb mhm. ñun suñu mbër dañ ko programmer pour mu doon roi des arènes indil ñu ko si jàmm gën bi mais programmer wuñ ko pour ay huitième de finale de ñun finale moo tax ñu programmer suñu mbër te incha allah mi ngi si kawam na jàmbaar yëpp génn ñu xàccandoo dóorandoo barki Sëriñ Bamba góor jàpp si góor waxumala la de ku dul Modou Lo sax si taako mun. ku waaw si taako gën a pare si lépp. Modou Lo moom parewul. la jàmbaar la. mais war na yàlla si taako mun fuuf. def ñaari xale Ama bii du yooyu noonu bii Baye Fall bi lool borom caaya ji borom tig-tig bi Baye Fall bu aay si gaaya bi bokkul ak boo yooyu jaar si Modou de. Mhm. bi doomu jàmm gën bi lool. Mhm. waaw mhm. xalaatee yaayam rek du bàyyi. ñu tam bu ñu xalaatee suñu yaay rek duñ bàyyi kon mooloo loolu mu soxla noonu loolu mu yor noonu ñun dañ ko soxla te dañ koy foqati sarax ndongo la wala mu tibboog doolam. boo ñaa waxoon na ne euh, golo wàccal may sa morom mu yéeg àdduna potundaa la boo naanee da ngay jox sa morom mu yow nga ñëwaat ne golo dañuy foqati xaw ma la est lu la wax ndongo wala mu tibboog doolam. est-ce yomb. waaw déggoo la ñun bëgguñu lu yomb. Hmm. waaw Modou ñun buñ jekkoo hmm. lu mu mun na def mais ñun buñ ko jekkoo suuru làmb ja hmm. déggoo lu mu la duñ ko moy si dara. Mhm. waaw après làmb ji après làmb ji la ko waa. mais ñi xalaat wëcc ne combat bi est-ce que du nekk euh, loo xamante ne benn combine la. mais yéen Modou Lo da ko xamee ñàkk fu la Modou Lo da ngeen ko xamee si ay affaire yu combine. Mhm. Modou Lo du combine bëre wax na leen ko. Mhm. bëggul defet loolu loolu nekk si moom. lu ko raw moo nekk si ñun. ndax ñun jàmm gën déggoo lu mu la ñun bëgguñu defet du si gis nga buy jug dëkk bi nu muy mel. kon tey ji nii kooku lenn rek la desal dëkk bi muy xola mu indi fi royal quoi. Mhm. te incha allah ñu ngi si tànk yooyu. Mhm. waaw ko ci benn communication mu ne fi mu awale booy yi fa lay awale sax. waaw loolu day wax lu mu xalaat rek Siteu du booy yooyu noonu de moom booy yooyu noonu la wax ne Siteu Siteu moo gën a oos booy yooyu fuuf non non booy yooyu ñooñu ñooñu ñoom ak ñoo ñamante. Modou bu ko neexee mu yàpp booy yooyu mais si Modou Lo du yàpp Siteu. mais Siteu ay ñoom Boy Niang ay même génération. waaw mais bokkuñu. koy ban booy Siteu du booy kenn. Ah. waaye kii góor gu dëgër la nga naan mooy ay booy Siteu du booy kenn. Mm-hmm. ñoom ñooy ay booy Siteu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. Siteu du booy kenn. bu muy dugg si làmb ji lan lañ waxoon. waa tey fa la dem. tey fa la dem. waaw yàlla noo yàlla xeeb dolli déggoo lu mu la ñun làmb ñoo fiy def loo xam ne mbër du ko def mbër mbër mbër mbër buy tax ngemb defoo ko si làmb ji ñun buñ bëree mu neex buñ feccee mu neex te dañuy ñëw feesal stade bi ñëw wan a jom fulla fayda ak jàmbaar moo tax promoteur bu tëggal Siteu da ngay bëgg a ñëwaat waaw parcelle foofu noonu mooy loolu Siteu dafaa bëri ay soppe barki Serigne Bamba parcelle foofu Siteu dafaa bëri ay fans Modou Lo ah Modou Lo fii bëri fii fans de non Modou Lo man moom laa man mii moom laa doon supporter <laughs> uh-huh. ba yi nekk xale war na Sëriñ Bamba Modou Lo laa doon supporter uh-huh. man maag Siteu dem nañ ba buntu kër Modou Lo ba muy bërek Balla Gaye unité 10 uh-huh. suroo ba ñuy ñibbi sax amuñu paas barke alxuraani karim lu ma lay yàggul dara Modou Lo dañ ko doon topp di ko supporter mais garab ci kaw lay fekkantee déggoo ma de boobu Siteu mi ngi bërëntu ay mbapat yi kon booy jàmbaar la barki alxuraan dem nañ ba buntu gaale Modou Lo Modou Lo Balla Gaye mhm. amuñu paas bi ñibbi si dañ doon kolo kolo yoon bi di langaay oto tey jii moo moog Modou Lo ñoo war a bëre mhm. kon ñun ñu ngi sant yàlla bu baax waaw mhm. barki alxuraan naka lañ nar a dugg see biir arène nationale ndax boo xoolee xale parcelles yi moom nee nañ takku nañ ba dëgër mm. tarkindaa yi la ñuy xaar te combat yi tarkindaa yi am ak combat bi du doon benn tarkindaa yi nan lañ nar a ñëwee yi ah yow seen dugg si moom mm. ah boo nekkul jàmbaar dëgg da ngay abale boo nekkul gaynde dëgg non da ngay lall de laa ilaha illallah foofu ñun ñoo ko moom arène nationale boobu Siteu moo ko moom barki Serigne Bamba te incha allah ñu ngi woo ñëpp nag si jàmm ak salaam ndax jàmm si la lépp xaj yaa ngi dégg képp kuy supporter du Siteu bu jour boobu jotee ñu ngi lay woo nga ñëw sol lu rafet sañse lu neex xeeñ parfum bu neex yéeg ci kaw seetaan suñu mbër moom dina fecc dina yëngal dina bëre dina daan ñu ñibbi si waat ci bëgg dina ci am parce que boo xoolee combat bi amagul ampleur tarkindaay waxagu ci xale yi passé des fois ñi sànni leen benn bal ñëw toogaan mais yéen nañu gis tarkindaay ba tey combat bi waxagule mu mel ne combat la boo xam ne ñu ngi naan combat bi du neex ay combat combine la est ban combine combat bi dina neex de gaynde gi bu ñu ñibbisee nga déggoolum la wax moo jotagul ragal moo loolu la ragal si moom yow Modou Lo yow yow Modou Lo bu ko Siteu soxla woon nii nii nii ma fekk bu biir gàllem moom Modou biir parcelle. indil ko Siteu nga naa may déggoo la ma sarax ndongo wala mu tibb ak doolem. ñun ak ñooñu bokkuñu. booy ñaa champion la mais tey jii ñooñu ak Siteu mm. bokkuñu. kii booy bi la kii du yooyu de. waaw mm-hmm. ah, doomu jaama gën bi la sañta bañ la. Mm-hmm. wër na Sëriñ Bamba nga bañ mu duma la daan la. Mm-hmm. kii Baye Fall bi la Modou Lo suñu grand la nag mais buñ la jàppee nga xam ne lépp dëgg la waaw ñun soxla wuñ mu may ñu bu amee lu mu maye na ko téye déggoo lu mu la moom lu mu yor nañuy jël foqati ko si ay loxom avec la manière indi ko biir jàmm gën si digg ñàkk tàng bi. bi nga ma wax xale bu ndaw. grand champion la waaye man dama man eh, le grand champion mooy sama mbër Siteu champion champion yi. xale bi nga xam ne ñëpp xale màgg na de. waaw xale bu màgg na waaw confirmation day am mhm. waaw mhm. xale bu màgg na si lépp mhm. yàlla nañu borom bi suturaal rek Modou Lo yow champion nga jàmbaar nga sampion Modou Lo du dara doo tus bu la si da jàppee da lay duma daan la man maa ko wax yow da ngay xaar ngay xaar ba gerte gi ñor nga naan may Modou Lo man dama lijjanti Modou Lo. yaa Oustaz kay waxal. lu mu laax làmb du diine nga naan ma yaa Oustaz ñun daw yooyu dawul suñu yaram nga naan ma ay yaa Oustaz yaa Oustaz nañu ñaanal rek ñu am jàmm ba jour ba. waaw nañu yaa Oustaz kay xanaa dina ñaanal laa de. waaw mais nañu ñaana laa de ñu am jàmm ba jour boobu mm. mu xam ne lépp dëgg la. Mm. billaay wallaay ñun déggoo ma de ay doomu jàmm gan lañ mm. dara dawul suñu yaram. Siteu kese waaw si arrêt Siteu la ñuy taxaw nag parcelle parcelle parcelle déggoo la ma aw ma lu may wax ak ñoom man Modou Lo am lu may waxal barki yàlla vingt ba 26 comme lu Siteu waxoon Papa Sow rek 1 ba 26 arrêt bu ñu wàcc Siteu du ma Modou Lo daan ko waaye yow la ma la nañ bëre 26 combats. commencé un ba vingt six. waaw déggoo lu mu la moo loolu ñun duñ bëre ak moom benn combat un la ñuy commencé bëre ak moom ba vingt six. daan ko si arrêt yëpp mu door ñu jox roi bi. Ah, baax na. merci kontaan na ci yow. jàmbaar yi fii la rawee gaañ bëgg naa leen. Mothie merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ ci yow ayca ñu gis beneen jàmbaar rek ñu toog ak moom. Thier waaw Thier Thier ñëwal. Thier ñëwal ñu waxtaanee ko wëcc waa ayca wëcc ba tey waa ayca. suñu roi bi dañ koy jëli jàmm gan loolu la ñuy mun ñoom mënuñoo bëree sa quart de finale huitième de finale mënuñu koo bëree laa la mbëru cinq cent mille lañ roi bi ba boobu si kàttanu borom bi ba boobu si kàttanu borom bi ba boobu si kàttanu yàlla booy yooyu da nga ni booy yooyu ni sita ah. nii bala ngaa yegg Pikine jaar guy ga Caaroy nii Texaco Jaake Lalke dafa sore sax fi jàmm gën la waaw ñun dañoo nekk si suufu kàmb gi te si la yëkkati na ko ay saa si kaw. barke Serigne Sidi Mbacke xam nga mënuñu see wax xam nga mënuñu see wax ñee dañoo nekk nit ñu baax di wax lu baax si ñun di def lu baax si ñun ñun ak ñoom seq ñu dara lu dul Siteu ak Modou Lo la seen signature ah ar Alxuraan liñ si xaar dinañ si am. lañ si mais ñun ak ñoom supporters yi jàmm la ñuy wax si ñun jàmm la ñuy wax si ñoom jàmm la ñuy seq ñoom ba làmb ji passé waaw mook Siteu nag bu ñu jàppee Modou Lo mu sedd guyu ñu jël ko yóbbu parcelle ñibbi si suñu roi kàttanu yàlla yàlla ñu fekk jàmm salaam incha allah ba tey ay sa ñu ngi fi nga xamante ne mooy jàmm gën ñu ci biir tarkindaa yi ndax nee naa la tey ñoom lañ seesi tey fekk la ñuy segg café ndax buñ leen seesee tey ay sa fekk la ñuy segg café jaadu na ndax nee naa la ki nga xamante ne mooy Siteu di tarkindaa moom it sa koor day segg café jox ko gars nekku fi nag mais gars yi ba tey ñu ngi continuer mission bi moom it dañ koy nuy bu baax a baax a baax ziar ko Babel Babel ziar maa ngi fi soxna si loon ne yaa ngi si jàmm ñëw ngeen rek si kañu borom dëkk bi muy Siteu nit ku baax nit ku am jom lu mu yóbbu bokk na ay mbokkam nit booy wax da ngay wax te tax rek ñun suñu famille dañoo yaakaar bu ñu demee bay ñëw kon ñoom Siteu moom moo ñu wan ngor ak fula ak fayda barke alxuraan moo tax am na wax yoo xam ne rek duñ ko déglu te duñ si sax tontu na borom dëkk bu ñëwee lum mu war a gérer dina gérer lépp mais Modou Lo laa leen xamal si leen si moom Modou Lo ruwaam saraxewu ko mayewu ko abalewu ko te lu koy liggéey Siteu mi ngi koy def te ñëpp bu ñu xamee ne xam ne borom dëkk bi ñëw na man loolu laa amoon si li may wax si Siteu bu baax. moom lu mu yor saraxewu ko mayewu ko te abalewu ko te ñun ñun lii rek moo ñu des moom lu mu waroon def yëpp def na ko lenn lañ des ak moom mu andil ñu roi bi te roi lay bëreel ñun dañ koy jëli ji barke alxuraan yàlla lu mu maye bu fekkee jëlu ko ñun lu ñu am dañ koy jëli ji roi bi ñoo fa am barke yàlla loolu dañuy dem jëli ji ko ñëwaat fii te jour boobu Siteu bu ko neexee du dugg sax oto day dox ba stade waaw loolu lañ nar ndax ñun ñoo moom làmb ji arène nationale du ñun lay mus. roi bi de. loolu rek. ko de ñu muy bëree ñëpp ay duraat lañu. kii góosa la koy tegal na ko dóor dóor yu metti Modou Lo ngir yàlla ni ñuy def bu mu mer bu mu andi mbooloowam bu bari ñëw si stade bi andi fa yoole na xam ne day tëdd. mais est eh, gisoo nu mu def ak Lac de kan mooy xeexal Lac de Guiers moom Lac de Guiers man maa bëre man maa xeex maa def lépp te Modou Lo deful si Lac de dara Siteu am. barke alxuraan Siteu la am te na xam ne Siteu lay bëreel barke Serigne Saliou damaa bëgg mu xam ne ni yorul combat bu ndaw combat bu mag lay bëreel te ñi lii nii yëpp kenn yaakaar ko woon na xam ne ni Siteu lay bëreel borom dëkk bi na andi lu wow kongu ñu andil ko lu ne dar te buñ ko jàppee day tëdd man lii laa wax man. leneen du ñëwaat après fu ñu war a raatare yëpp ñu ngi leen xaar. yee bu baax. ayca merci beaucoup jaajëf kontaan nañu Aïssa ne ñëw ñu ñu tàggoo ko rek ñu tàggoo ko rek non donc il faut nga kii tuuti <laughs> Aïcha ba tey nee naa la Aïssa ñu ci biir mais xam ne ne combat Modou Lo ak ki nga xamante ne mooy Siteu tarkindaa bi taxaw na mais combat bi nag ci des na ay ay ay weeri weeri weeri weer mais du du changé nag comme ñoom dañoo ñëw ci café gi fekk leen ci il faut ñu waxtaanoon ci li nga xamante mooy ci préparation combat bi sëñ bi nuyu naa. fay si bu baax. maa yaa ngi ci ngi si jàmm baax a baax. ndaw ndaw wala. ndaw bi waaw. waaw man ñëpp samay njiit lañ. Ah. Ah, ndaw bi waaw. taxaw na bett. non loolu ku xamul Siteu lay bettu quoi mm-hmm. maanaam Siteu fu mu jaar ñun ñun Siteu lu. ëpp droit des arènes bu amoon si làmb ñun du ñu beet ndax xam nañ Siteu mooy kan xam nañ lu mu xam nañ lum mu mun xam nañ tamit lu nekk si moom ko quoi ku xamul Siteu mooy wax combat Modou Lo Siteu mun na ko daan wala munu ko daan mais ñun combat bi suñu wax du si bëri ñun tarkindaa yi ndax jëf la ñuy wane waaw ñun lu ñu war a def lépp def nañ ko si làmb amul lenn loo xamante ni dañ ko war a def si làmb essence yi nii nii defuñu ko moo tax combat bi liggéey lu bëri wax lu tuuti la laaj. waaw moom la ñuy def. dégg nañ ko mu ne fi mu jaarale booy yi booy ñaa fi mu jaarale booy ñaa jaar fa ama ba dafa lay jaar. non loolu waxam la eh, booy ñaa ama duñ sita waa sita góor gu dëgër la koobu wóor na maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp boo leen ràngale woon ku xamul nag bu ko déggee mun na ni ñii ay fan sita lañ ay gaanu sita mais ñoom ñëpp moo leen mun waaw làmb amul mbër buy tax ngemb koo xamante ni ñun gis nañ koo xamante ni moo daa ko bëre sita loolu gisuñu ko ñun waaw. moo dàq bi wax ne moo dàq ba di ñoom ñoom loolu ñoom dañ leen koy nangul waaw ndax ñoom loolu Siteu maanaam waneegul dëgg dëgg dëgg lu mun si làmb moom waaw ku ko umbale mooy wax loolu noonu mais làmb jii nii nii nii nii dangay xam ne yàlla bi ñëw na de. mais bu dee côté xeex moo doo ko dàq xeex bu dee côté bëre moo doo ko dàq bëre kon Siteu lan la am non gis nga nag foofu dama lay wax leen gis nga góor ak góor ñu boole leen gën a ñeme moo fa am yee gën a ñeme ndax dóoral ma dóor la rek moo loo xeexu dóoral ma dóor lay dóor te Siteu xaleem ban mag dafa xeex kon loolu jaaxalu ko xeex boobu jaaxalul Siteu te bu bis baa bu Modou Lo indee lool dañ koy dóor mu daan waaw wax ji nag maa la wax xeex bu muy xeex ak ñoom Boy ñaa ama yeneen mbër yi nii bis bu ko xeex ak Siteu waa làmb dañ am leen bett. mais koo mosu mu daan mooy dóore muy daan waaw mais tamit ñun mosuñ ñëw dóor ñu daanu te tamit dóor nañ mu daanu Zoss dañ ko dóor mu daanu ak ñeneen ak ñeneen waaw Modou Lo daal maanaam xam nga lu ma koy wax si làmb ji di ko ñaanal wér yee di ko encouragé tamit waaw ndax grand frère bu bu boo xamante ni référence la waa waaw dañ koy nangul loolu mais làmb ji bu bu yi jeexee nga xam ni jàmbaar yi ñëw nañ. mais tarkindaay est-ce que di ngeen mën a di ngeen neexal làmb parce que koo dig mën non Siteu rek bu ñëwee toog rek day neex waaw moom bu ñëwee nii 16 8 toog toog rek day neex Siteu waaw moom instant yii moom manqué dëkk bi quoi jaama gën waaw moo tax gone yi sax firiwuñ moom bu ñu gisee Siteu ñoom waaw si la ñuy gën a mooy loolu. waaw di ko wax waaw ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram rek oustaz yaa oustaz waaw nañu ñaanal si koor gi nag waaw jàmbaar bu baax la mag bu grand frère bu baax la. merci beaucoup ah, kontaan na ñoo leen gën a kontaan. Eh, di sant jàmbaar yëpp nag tarkindaa yi nii waaw ndax ba koor yi commencé ba tey café gi gars yi ñu ngi fi gisuñu Siteu tamit mais ñu ngi def lu leen war loo xamante ni Siteu bu fi nekkoon moo koy def gars yi xaaruñu ko si quoi. Eh, di sant tarkindaa yi ñëpp ñëpp yu góor yeeg yu jigéen ñeeg mag ndaw koñ bi di sant ñëpp waaw di wax jàmbaar nag essence yi nii nii nii lu ngeen waaj des na eh, ndax roi la ñuy bëre du ay foole. ajo bégee wan loow ayca merci beaucoup ñu ngi koy ziar bu baax a baax di leen jaajëfal Babel merci beaucoup ñu ngi lay ziar di la kontaanee bu baax a baax a baax képp koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel di ñu suivre rek ci site bi ngeen di bàyyi xel muy Dakar People li ñuy faral di wax rek ñun moom macha allah wax dëgg yàlla ci li ngeen bëgg ci li leen neex ci li ngeen joie ci la ñuy dox jàmmagal la woon ay sa seet si tarkindaay jàmmagal la ñëwoon doon waxtaan ak tarkindaay ndax ku xam ne ne site chaque weeru day teg café berneel ko ñi nga xamante ne mooy mooy xale yi jox ko ñi nga xamante ne mooy dañuy woor ba ngoon amul ñu dogoo mais Siteu nag nekku fi mais nag tarkindaay la fi bàyyi ba tar ASC tarkindaay ñu ngi doxal loolu gis nañ teg nañ ci nu café ñu ngi koy segg pour suukar ko jënd mburu jox ñi nga xam ne ñoo woor ba ngoon amul ñu ndogoo da leen di jaajëfal ci loolu ASC di kontaan ñëpp di jaajëfal ñi wax nag tey tarkindaay dañ seesi woon waxtaan ak lu bare bari macha allah kontaan nañ ci ñoom ñëpp di leen jaajëfal wëcc kontaan naa ci yow merci beaucoup jërëjëf yal na yàlla defal la jàmm defal ñëpp jàmm macha allah kontaan ci ñëpp Aïssa ngi lay bëggee di la jaajëfal kontaan naa di wax ba beneen yoon ci beneen émission spéciale làmb jërë ngeen jëf